asalaamaaleykum ah, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam man Pape Cissé laa tudd nekk responsable politique euh, bu Sirédia euh, li waral euh, bés bi tey tey dañu dañoo ñëwoon tey HLM seet si woon waa HLM li ko waral nag mooy ci diggante ñoom Leena Diouf ak ñoom Bikiri ñoom Mamati Gueye ak waa HLM yëpp ñoom nag encore encore une fois daal ñoom ñii ñoo gën a sabab bis bi tey parce que ñoom ñoo toog. gis Siré Dia ay actam fii ci Thiès ñu jóg uniquement di ko jàppale vraiment ñu nekk ay femmes yoo xamante ni bi ay femmes battantes lañu yaakaar naa ne Bichri ku ku nekk Thiès xam nga kuy Bichri mu ngi fii HLM nekk nit ku baax ñooñu tey ñoo sabab bis bi tey ngir jóg jàppale DG Siré Dia ndax boo gisee ñu jóg di jàppale DG Siré Dia yaakaar naa ni si ay action yi nga xamante ni bii tey Siré Dia def na ko au niveau de Thiès def ko au niveau de Séné ci Sénégal gi yëpp kooku moo tax tey ñëpp jóg pour jàppale DG Siré Dia waaye ñii dañoo nekk ay femmes yoo xamante ni bi ay femmes battantes lañu nekk ñoo xamante ni bi tey mbooloo la ñu yor nekk ñoo xamante ni ñi tey dañuy représenter lu rëy fii nekk nag ay nit ñoo xamante ni bi nit ñu baax lañ ñu fidèle am na nag fu ñu nekkoon fa ñu nekkoon bañ fa nekkee def nañ fa lu rëy ba nit ñi naw leen ci respecté leen ci bu ñu ñëwee ci Siré Dia aussi tey jii maanaam ci ay actu Siré Dia ak mbaax mbaaxam moo tax te ñoom ay ay nit la ñu daal nit ñoo xamante ni nit ñu baax looloo waral tey bis bii tey ñu ànd ci nag ñun ñii ñëpp xëy na tey euh, ni affaire yi demee tey wax dëgg yàlla tey HLM génn nañu ñëpp génn nañu mais tey affaire bi dafa sës tey ci màggalu Touba vraiment ak safar yeeg yooyu daanaka nit ñi dañ cee concentré wu nekk ci mais daal ñu ngi wax waa HLM di wax waa Thiès yëpp tey jii ñii ñëw nañu jël seen propre engagement di jàppale DG Siré Dia ñuy ñaan DG Siré Dia aussi jàppale leen parce que ay jigéen lañu nekk ñoo xamante ni bii ñu gore lañu nekk ñoo xamante ni bii ñu baax lañu ah wax dëgg yàlla vraiment ñu ngi leen di sant nag yéen ñëpp euh, wasalaam. Ah, mbokki HLM ñu ngi leen di nuyu euh, euh, tey nag li ñu fi indi c'est à travers un ami.

yàlla def président Macky Sall def ko directeur général poste mu am yéene dellu si dëkk bu mu juddoo yoroo fi màggee fi jàppale Thiès pour jëmale cees kanam ndax it la président Macky Sall moo ne woon ñi ma xamante ne dama la jox ay ndomba tànk bëgg naa ngeen accessible bëgg naa ngeen jege askan wi bëgg naa it ngeen jàppale askan wi. yéen waa HLM ma leen di laaj ndax DG Siré Dia mu ngi jàppale Thiès wala jàppalewu leen kon loolu. président Macky Sall seede wa waa HLM ak wa Thiès ci DG Siré moy mooy yi kon lolit dañ ci sante Yalla bu baax a baax baax. li DG Siré di faral di wax continue len gën yaatal tax boo leen ko né yaatal ñu daj Thiès bu ñu dajé Thiès kenn lenn dootuñ ko xëccoo kenn parce que son bilan li mu def à Thiès bo waxé éducation bo waxé santé bo waxé emploi bo waxé emploi des jeunes vraiment Thiès li ñuy faral di wax de l'histoire politique de Thiès. jamais un leader politique n'en a fait autant que le DG Siré Dia kon loolu suñu fierté la ñun waa Thiès te loolu it ma leen di biral ne DG Siré Dia dafa yàgg a wax ne moom mu ngi jàppale waa Thiès te yàlla tax te du politique du dara ndax it Thiès bu ñu waxee sport tey vraiment bu doxee yàlla ak DG la sport jeunesse su Thiès ko bokk kon loolu du politique amul xàjj ak seen. bu ñu waxee étudiant Thiessois yi di avenir u Thiès amul at bu yàlla sàq déjà Siré Dia du leen jàppale pour ñu am ay dëkkuwaay Dakar parce que ñëpp xam nañu étudiant problème bu njëkk mooy dëkkuwaay te foog naa ne loolu it du APR du benn partie mais daf ko def pour jàppale jeunesse su Thiès. buñ ci jógee nga xool lu mel ni emploi mooy li nga xam ne mooy aspiration bépp jeune buy jàng mooy aspiration képp koo xam ne da ngaa yore doom déjà Siré Dia gis nañu nu mu taxaw jeunesse su Sénégal Sénégal émergent bu seen président Macky Sall teg à travers PSE mais aussi ñun waa Thiès aussi saa su ne jeunesse dañ ko ci gërëm di ko sant ndax it nag li ngeen wax sànq balaa nit di napp di la jox mu jàngal la nu ngay nappee te loolu DG Siré loolu jeunesse su vraiment saa su ne mu ci ak ñoom. kon nag mbokki HLM bu yàlla defee it nag ki ñu doon wër tey ngeen ñëw ba waa kër ma baaba ànd ak waa HLM taxu ne dañuy jàppale Désiré Sérédia nekkoon fan réew mi ne dañuy ñëw biir APR à travers Désiré Sérédia de par son bilan ak yéene ji mi am Thiès kon fi may tàmbalee leena ñu ngi leen di dalal biir APR au nom du DG Sirédia di wax ne fii ci HLM tàmbale ko ci waa kër Père Mababa cellule APR taxaw na fi pour le DG Sirédia kon loolu dañ leen koy biiral kon bis ni ki tey cellule APR taxaw na fii biir HLM kan suñu frère Pape Cissé démarché ko suñu jigen leena ak waa kër Perma Baba ak wa HLM yëpp taxaw pour jàppale DG Siré Dia mbokki HLM nag foofu dama fay taxaw touti li tax dañuy deugmal lu am solo parce que DG Siré da doon wax né dafa may étape intermédiaire moo élection locale ak élection législative dafa wax né dafa am étape bu ko amal solo moy lan élection présidentielle 2019 moy kan jàppale président Macky Sall au niveau national et international mom DG Siré

loolu na ngeen ci taxaw na ngeen ci taxaw bu baax a baax parce que it nag dafa am lu am solo président Macky Sall dafa dëgmal premier mandat ñëpp gis bilan bu mu def au Sénégal mu am yéene def deuxième mandat pour lépp lu mu sumb à travers le PSE mu eggale ko kon yéen waa HLM yéene DG boobu loolu da ngeen ci am solo taxawaay bi ngeen ci war a taxaw DG Siré ja aussi di yaakaar ci yéen pour que élection présidentielle bi ñu jëm à travers cellule bi ñuy samp fii à à HLM que école primaire bi le incha allah rabi ci élection présidentielle yi ngeen taxaw ci biir quartier bi ba may fi DG Siré Dia ndam lu rëy rëy comme ni mu amee yéene may président Macky Sall ndam lu rëy biir Thiès. buñ ci jógee nag aussi déglu nañ leen mooy que ne dégg nañu sànq suñu grand frère mu wax problème mu e bi déglu nañu jigéen ñi ñu wax mbébétu financement yi. déglu nañu la jeunesse ñu wax problème emploi man mënu ma ci jël engagement mais dafa am wax joo xam ne DG Siré Dia daf ko yàgg wax dafa wax ne moom yéeneem mooy jàppale askanu Thiès te ku si kuy wax politique da ngay wax jigéen ñi wax jeunes yi te day naa ne li muy def Thiès yéen ñi taxaw ne da ngeen koy jàppale muy jeunesse HLM muy ci sport muy ci éducation muy ci santé ci jigéen ñi surtout développement ak financement famille ku xam DG xam nga ne ah Thiès c'est le champion kon yéen ñi koy jàppale incha allah rabi góorgóorlu leen ci ngeen taxaw gëm li ngeen di def parce que politique ñeme féete la politique débat diide la politique yaatal la kon fii di HLM HLM dixième ba carrière ba ba cité Malick Sy ñu ngi leen di digal au nom de DS Siré Dia ngeen continuer liggéey bi yaatal base politique parce que fi ñu jëm inshallah rabbi le DG Siré va continuer à soutenir la jeunesse de Thiès il va continuer inshallah à soutenir les femmes de Thiès il va tout faire pour que Thiès jëm kanam waye nak aussi nit dafa am lu am solo yeen wa HLM lay waxal moy que ne tay DG Siré à travers li ngeen ko sédal ci lu baax li mi def à Thiès momit wolof dana lëg bu lekkee alom nako gëremé gërëmee ki tax mu mun loolu c'est c'est le président Macky Sall kon aussi loolu dafa am loo xam dafa am solo ci moom mooy fii ñu jëm du ay foo du ay caaxaan ci moom te képp ku koy jàppale nee na nga jóg taxaw képp ku koy jàppale nee na nga jóg organisé wu képp ku koy jàppale mu ne nga wàcc ci base bi pour ñu jàppale président Macky Sall au niveau national en 2019 pour mu am un deuxième mandat kon bis ni ki tey cellule HLM bi seen rôle mooy gagner centre bi yaatal base politique de Sireja. le reste le DG Sireja va s'en charger limuy def yenen koñ yi boo leen taxawoo jeunesse bi ak yéen ngeen déterminé à ses côtés pour soutenir le président Maxal il va continuer à vous soutenir kon vive le DG Sireja, vive le président Maxal. je vous remercie. surtout ànd ak Siré bu baax a baax ndax baax ndaxte wax dëgg yàlla ñoom mënuñoo wax ni ké def na fi dara ci HLM bii lu ñu gis ñun kii lañu am. dëj bu amee duñ ko gis te nit dangay xam sa boo nee nit sama nit la fu mu taxaw foo taxaw war na fa taxaw boo deelee war nga ko gis mais ñun ñi wax dëgg yàlla ku xam xam ma baaba xam ni ma baaba vraiment Thiès ñëpp ko xam région de Thiès ñëpp ko xam wax dëgg yàlla ci kaw lañ ko yokk parce que ma baaba Diouf dafa fi lu ñaaw dafa fi lu luñ koy xañ-xañee mais lu tal ni ma baaba Diouf wax dëgg yàlla bu génnee àddina au moins ñu mën koo euh, ñëw bokk sax kii si mais du dara luñu gis lolou moma ma tax parce que xama ku lay laal dalay laal fo xamni vraiment bu la fa laalé nga yëngu motax ñu yëngu motax surtout man ma yëngu parce que mëno am lu gëna metti nit ku génn adina mais ba mu adina gisun ñu ko ñu ko bëtt ay safu ñu parce que ñoo jox luñu luñu amul mënu amul jox luñu amul motax nak nag vraiment ñun ci kaw je le dis au effort fort e ñun HLM e ñun ñëpp and na ñong ci ginnaw siré ñong ci ginnaw siré tay ba suba dañ koy wax fi té dinañ ko waxat fenen parce que man dama gis mu def lu concret même buma ma defalul it dama gis mu def lu concret dama gis mu def lu kii nit amul lu dul social social moy kii ci aduna bi moy dox motax mom la andal vraiment pap si c'est mom lu luma luma don bolé ak siré rëccuuma luma don ki bay ak siré ndax luma nakar dama ko wax vraiment bu lolou wesso nak ma ngi geureum wa aslam vraiment ndax mënoon nañ ci leen ci bañ a fekk di gërëm suñu yaay ji ndax soxna la woon sam papa wax dëgg yàlla moom tamit ci suba ba tey mi ngi fii lu ñu dugg mu dugg ci lu ñu génn mu génn ci maa ngi koy gërëm gërëm Pape Cissé gërëm waa HLM surtout sama seex maa ngi gërëm ñëpp bu ku juum. daa ne mais tey jii lañ ko ko wax mu ñëw. vraiment HLM nag peut-être génn leen yombul mais bu ñu gisee incha allah mu kii bu boobaa ñoom ñëpp dinañ ralli rallier si parce que man mii ku ma waxoon ne dinaa ñëw ci Siré duma ko gëm mais lu ma gis moo ma moo moo ma moo tax ma ñëw te dinaa ñëw mais ñeneen dañuy ñëw wax dëgg yàlla merci beaucoup. bon di leen xamal ni euh, Pape Cissé ay at mi ngi nii mu topp sama sœur bi di leena di ko wax affaire Siré.

ma ni ko nag vraiment sonn na jot nañu jàppale ko ndax li muy wax ci Siré te ñun tamit gis nañ ci teg suñu bët mu nekk loo xam ne lu dëggu la ma ne ko jàppale pap mii nan ko jàppale ci Siré Dia parce que Siré Dia quoi qu'on puisse dire il passe à l'action moom daanaka bariwul wax waaw ne ñun HLM tamit bon ñu jug ne danañ fi ko fi taxawal teewal ko fi ndax fii ku ci ne am nga doom joo xam ne am nay diplôme te ba léegi amagul xëy léegi ñu ni balaa ñoo jàppaleeti kenn nga xam ne duñ la gis duñ la dégg te suñuy problème mënoo ko saafara nan jàppale Siré moo tax leena tey ji woote fii waa HLM nag daanaka ñin ko yëgal sax ndax dafa xat xam nga màggal gi am na ñu bëri ñoo xam ne actuellement nii dem nan kenn talul lenn lenn lu màggal gi nii waaw ne bëggu nan bàyyi ba màggal gi paase mais dan ni nan ko ci def rek bon pour euh, pour une première après buñ ko yaatalee incha allah ba nañu dal ak jàmm ne incha allah di ngeen gis une forte mobilisation. tay wax ni man mom personnellement man kenn musuma xam ci politique ñu bëri dañ nan xana man dëkkuma HLM ah kay fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa mais dafa am lo xamanteni ni wa HLM parce que léegi ci neen naxuli béy ñun man de tay buma taxawé ni tay di wax ci affaire de politique c'est grâce à Pape Cissé Pape Cissé sama goro la sama xarit la sama lepp la man je suis apolitique bañ naa ko ba voter sax daaw ma ko woon def mais grâce à lui dina tax su ma yóbbu woon fii ba gannaaw Linguère incha allahu rabbi dinaa ko def parce que Pape Cissé euh, dafay toog di wax ci ñun ci sire Dia tey moom moo ñu motive tey bu ñu jugee bàyyi suñu itte yépp weekend bii ndax liggéeykat amul lu dul samdi ak dimanche mais bu ñu bàyyee lépp ñëw toog fii Pape gannaaw yàlla yow yaa tax kon Pape gàcce ngalaama ñu nekk nag biir HLM Route de Dakar HLM man yedduma leen ci dara yéen délégation Siré yéen laay waxal HLM yedduma leen ci dara parce que HLM Route de Dakar dañ leen a yàgg a nax dañ leen a yàgg a des promesses non tenues loolu dafay yàgg am ki suñu papa yi ki suñu ay yi suñu grande sœurs suñu grand frères yi ba ci ñun jeunes yi léegi nag fii xale yi ils sont diplômés xale yi jigéen yi ñu ngi fi xale yu góor yi tout le temps demuñu dikkuñu te ñun dañuy dégg vraiment Siré mi ngi recruter par ci mi ngi recruter par là mi ngi jàppale nii mi ngi jàppale ña mais HLM gisuñu ci seen bopp te a chaque fois ñu ngi naan HLM HLM HLM HLM defuñu dara ku leen yëg ñu yëg leen ku leen yëgul duñu lay yëg te tey lii bu fekkoon ni tey yëgle nañ ko kon fii bu ngeen ñëwee dinañ mujj obligé génne suñu ay chaise ci biti mais nag c'est une première lii c'est une première te yaakaar naa bu ñu génnaatee ci terrain bi incha allah dinañ am li nga xamante nii ku ñëw di nga yaakaar ni ñëwoo woon HLM Route de Dakar HLM ay jeunes ñoo fi nekk kon yéen délégation Siré Dia maa ngi leen di ñaan bu ngeen demee ngeen wax Siré Dia ngeen leen waa HLM Route de Dakar ñoom pare nañu pour jàppale Siré nekk ci gannaawam ñuy xàccandoo di dóorandoo macha allah tubarfakalla lépp aussi c'est grace à Pape Cissé Pape Cissé mu ngi dox guddi mu ngi dox bëccëg mu ngi dox suba mu ngi dox ngoon waa poste ñii ma jàkkaar lool ñoom ku ci nekk xam nañ ni man aw ma jot bu ma génnee HLM 8h30 20h laa fi dugg si waat wala 19h30 aw ma jot ñoom xam nañu parce qu'on travaille ensemble kon lii. du dara c'est une première nañu jàppalante ñun ñëpp xam ne HLM ñu ngi fi jeune HLM yi ñu ngi fi maire yi ñu ngi fi xale yi jigéen yi ñu ngi fi ku leen jàppale macha allah foo nekk dinañ fa nekk.